ahousubillah bisimillah inna waliyallah wa ma tawfiqiya illa billah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalube yi noo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara di di jël nag ci nuyoo bi jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dendal muy sëriñ Moodu Mbàkke Ndiir mm, di doom ci Cheikh Baba Kunta Ndiir waaye tamit tey ji ñu teew fi ci teewaay boo xam ne teewaay bu ama am solo teewaay bu rafet waaye ci turu kuréelu ñaari guddi ndakaaru yi nga xam ne euh, ñoo féete fii ci ndakaaru teew fi ànd ak waa Bawal di le sëriñ muudu Mbacké ci bis bii nga xam ne mooy bisu juram ñu teew fi nag ci njiital jëwriñu liggéey bi muy sëriñ Ndiouga Dieng nga xam ne mooy président actif bi waaye ànd tamit ak ay bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi ku mel ni secrétariat Serigne Alxaaji sekk Serigne Moussa Ba ci finance ak ku mel ni sëriñ Bay Diouf mu mag waaye ànd tamit ak ku ñuy wax Serigne Modou Faye Touba moom it euh, euh, di mbokki sëñ Abdou Mbeng waaye fekk fi tamit ku mel ni baay Ibrahima Ndong bokk ci kuréel gi nga xam ne ñoo féete fii ci Bawal ak sëriñ Abdoulahi Diouf mi nga xam ne moom dafa sëriñ Aliou Thiaw yebal ci Touba Babak nga xam ne ànd ak mboolem mbokki taalibe yi soxna Ami Kolle Mbeng mi nga xam ne moo jiite relation extérieure moomit it ànd nañu ak sëriñ Jibi Diouf buntu Pikine jiite ma Mafatihul Bisri ak sëriñ Moudou Diouf sëriñ Maam Thierno Mbacke mi nga xam ne mooy président d'honneur kuréelu ñaari guddi Ndakaaru yi yebal na fi doomam ji mu tudde waajuram muy sëñ Muntaxa mi ngi ci yoon wi di ñëw ànd ak Serigne Kader Mbaye kon loolu tamit ñoo ngi koy seedeel bokki taalibe yi ñoom ñëpp teew nañu fi ngir sargal jëw sunu jëwriñ di sunu kilifa muy Baye Modou Mbacké ndiir ci bis bii nga xam ne moom la ñuy taxawu te di ko taxawul waajuram muy sëñ Baba Kounta Ndir ñu koy ñaanal sunu boroom fan wu gudd lool wa ànd ak wér ànd ak kattan ba lépp loo xam ne yéene na ko ci bis bi mu am ci lu kawe njortam te nu kook moom ci barke Cheikhul Khadim barke maam Cheikh Ibrahima Fall xam naa kon bu ko defee dañuy wàccee foofu sunu kaddu daal di jox Baye Modou Mbacké kaddu gi mu daal di ñëw ci ak leeral ci lenn li nga xam ne aajo na ci bis bi nga xam ne mooy bisu bi nga xam ne moom la ñuy def te di ko defal Cheikh Baba Kounta Ndir bisimilahi Baye Modou. bisimilah. barke sëñ Muntaxa. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen njabootu gi yéen ñi sëñ Touba sédde ñaari guddi yi mu defal Ndakaaru. bañ tudde leen kuréelu ñaari guddi ndakaaru ñu ngi leen di nuyu ci turu maam Thierno moom sëñ Mouhamadul Mountakha nga xëy ne fu ñu dem fu ne ci ndigalam lan fa demee luñ fa wax ci ndigalam lan ko waxe ak kàddum euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu sëñ Juga Jeng mi nga xëy ne moo jiite liggéey bi te sunu borom. dogal ko mu jiitee ko ni nga xam ne mooy ni nu gënal nun eh, bu loolu jàllee maa ngi leen di bu baax a baax a baax a baax di leen jottali ay kàddu yooyu nu ko bett nañu lool waaye nag mbir moo xam ne mi moom dund ko la war a mën a bett lool jëmm ji nuy màggaleel fii muy sëñ Baaba Kunta Ndiir eh, jëmm la xam ne suñu borom moo nu ko xéewale ci ci baaxam ndax euh, sëñ Touba moo nekk ci xomaag sëñ Babacar Cargaan jóge fii ci Bawal dem siyaare ji ko ànd ak ku ñuy wax Adama Sey Càmba bañ demee sëñ Touba laaj leen a Babacar Sadiq sëñ Babacar Cargaan moom te xut mu xam ni sëriñ bi waxee aada toog taalibe ba mu àndal Adama ne ko xam naa ba ku ñuy wax Baba Kunta mu ne ko sëñ Touba ne ko déet a Babacar Sadiq booba waxante nañ fa loolu bu laaju wax ji laaju ko bañ ñibbisee sëñ bi ne ceyeen ba ñibbisi moom Serigne Touba ñu njaareem 12 1912 ndax moo wax ne raamul ma siri ilaa jurbel la daa lasasin la waye naa law fii siri ma raam ne ñëw nañ jurbel ama lasasin te loolu boo ko seetee dafay jëppoog 1912 bi mu fi nekkee ba ca 13 ja wala ca cates ga ndax ama balsasin dafa tombeek dañuy duggante ndax tey noo ngi ci ñaareelu weeri tubaab ñetteel bi tey la ñaari fan xawma benn te dugg nañ ci lu jóge juróom-ñaari weer ci atam nit ku ñuul muy atum biddiw yi ak atum weer yi ak atum jant bi ñetti at ñoo am arabe yi ñu ngi tëkk seen calendrier ci ci biddiw yi tubaab yi tënk ci jant bi nu tënk ci weer yi weer wi nag day mat ak ak ak a manqué sëriñ Touba sëñ Babacar Thiat Gane jóge fii ci ci Mexee Lambaay dem siyaare ji sëñ Touba ci njaareem mu ne ko ana sa ndongal ak ma àndalan fekk mag mu gànnaar mu ne ko mi ngi nii ma nga mu ne ko soo demee wool ma ko sëñ Adama Sey lii nag moo ma ko nettali 1969 ci jamonooyu boo di waaji si mois de juin mu ne ko mu ñu woo ko sëñ Adama Sey ma wuy ko ndax boo ñëw ànd dem njaareem sëñ bàyyi ko dem siyaare sëñ Touba mu ne ko baaba Babacar Saddiq laa bu nga woole ma ko te néew ko na mu ñu wuusi tey tey fekkan na boo sëñ baaba li ñuy def ci ci wàllu yàlla toppoon na xaadir yi cheikh bu topp ko tërbiye ko ci ci wàllu tërbiye yi ba ñu séq ba mu xamal ko ne ko li jaasa mutlaxan am ko ci cheikh Abdou Xaadir Jilaani sëñ baaba di maye wirdu xaadir xam naa fi ay cheikh tey yooyu ñoo ci saayir fuuf te sëñ baaba li may wirdu xaadir yi xam naa ko bu wér-wér ndax jàgg na ma ak mag ñi sëñ baaba fekkan mu wol ay cere ak i ak daqaar ak yañ daa siyaaree bu njëkk sëf ku ci mbaam ak i gileem ñu war a siyaare seex buukunta sëñ Adama say agsi ne ko kaay wuyu sëriñ Tuubaa mu ne ko soo demee nee ko su ma demee ca seex bu ba ñibbisi dinaa ko wuy si magam dañuy wax sëñ Abdoulaye ne ko ku sëñ woo nga wuy ji ko mu dajale waa dëkk bi bépp ay baayam ak magam yi fi ak rakkam xam naa waxtaan ceeg ñoom kenn ko ci tontu muy sëñ Abdoulaye di ko wax bàyyi Abdou Ngóone ne ko di nga wujj sëriñ Tuubaa tey tey mbaa ma dugg ci néeg bi taal ko ci sama kaw wala ma tàbbi ci bi mu ne ko Abdoulaye defaral nooyaand loolu jëru ñu daal di ànd fi jóge fii dem njaareem sëñ jili waa daan suug le sëriñ Tuubaa wax ne ko ndax sëriñ Tuubaa da daa seexe da daa da gàmbale bu dem naar nga xeetu naar nga ca naare la loo xeetu woo doon rek ñooñu lay jéem nga jaxasoo ñoom mu ne ko nang ma dalal sama gan gi mu dalal ko sëñ baaba ne lii moo ko wax ne ba ma xëyee ba jant bi jóg ndaw ay ndaw agsi ndaw ya nag nii ñett la waaye wóor na ma ne moom ñett mat nañ ko agsi ne sëñ jiiri waa daan sëñ tubaa ne ganam gi na jàll si sëñ baaba ne lii nag kenn nit léew moo ko wax ma dégg sëñ baaba ne ma génn ba war am rafle bu métti daa am yàlla dimbuleen ma ba ma am mbàjjam leen lal ko ca lal ba ma sëñ jiiri dalal ba mu xëyee mu ne sëñ jiili waa daan sugu rafaatal naa la mbàjj mi ba ma ko wax fukki at la am lu ko ma ma ne ko looy rafaatal mu ne ma jox ko mbàjj ma mu moom ko ne ko sama borom may na ma kàtt nag lu aju ci yow bu nu jàkkaarloo yaram aram na safara tey sëñ baabaa ko wax maa koy fekke nee ñu ànd di ubbi di ubbi ba ma séeréer sëñ Tuubaa jublu penku ma ne ba ma àggee fa yàlla kee la ma suñu borom booleel nee ma tëdd fi suuf ne raamuma doxuma dawuma damaa béréngu nu jaan doxe mu runglu sax la wax baagu suub sama ñaari loxo ne mu ne ma yëkkat ma jóg mu ne ma xam nga sa maam foofu nag daa am ñaari werante waaye na ko sa maam Muhammad mu ne ko waaw ñu wàqante ci la ñu wàqe suñ tubaa jël xalimaam bind jox sëñ baaba ni damaa daje nag moom jamono mu war a doon xut bu samaan war a atte jamono mu dénkan ma la keral sëñ baabaam li muy am ci sëriñ tubaa ba mu ko joxee téere ba suñ bàyyi du ngoone mi magam te ànd nag moom topp ko ba mu def xaalis topp ko mu dem murit lekk téere ba dal koy wan ne sëñ Tuubaa mooñ ba ree ba bëñ feeñ loolu bàyyi du ngoone ko nettali foofu nag la sëñ ba tàmbale di am na ci yooyu daal mëneesu ko wax waaye foofu daal la tàmbali di def ay kéemaan ndax ba mu jógee ci sëñ Tuubaa daja naa kuy wër ak jur ci siin ñu jóge siin mu ne lu ngeen di wër ñu ne ko jur lu ñu wër mu xool leen raayil seen i bët ñu xool jàkkaarloo moom ci dex ak jukk ca murtani mu ne ñu di waaj a jéggi ñu gisal ko seen bopp mu ne topp leen sans baram ñooñu daal koy topp kookee maami seen seex ndigal seen mii ngeen di dégg baayam sëñ baabaa ko tuubloo moo ko dugal ci lislaam soo demoon fa seex tey ne ko ndiir laa sant lu toog ci plan ci suuf lay toog foofu sëñ baaba jaarne bi mu demee nag fos ba ko seex bu naa ma joxoon ñu sàcc ko ginnaawam fos woo da ko tudde woon ku bañ buur ay nit jóge fii ci dëkk bi ay bokki boppam dem ne seex bu naa ma sëñ baaba a sa fos wa ci sëñ tuubaa am nay cooyu yu tuuti waaye coow yu gaaw a lijjanti ko foofu sëñ baaba jaarne bi doon nag sëriñ sëriñ sëriñ tuubaa mut laxan tàmbali nag daami taaliba yu yokku ci taaliba yi xaadir yi ma amoon sëñ baaba ku ñuy wax njaga kitaal ca ngalañ boo jógee fii jaar ngooneem dem ngalañ fa nga war a jàddi wuti mbadat géy docteur bii ne làmbaay maamam mat sek dafa aman wóllëre wu ñuy wax njaga kitaal mu faatu ñii ne altale la ñii ne waaye faatu na ba ca ba ñuy wër sëñ baaba ji siin bañ demee somb ñu ne néew fi ñu dem jaawel ñu ne ñu dem ñu dem maqaj déet ñu dem belki ñu ne mu dem sooma dem somb jaar ba njaayantoog ba njàmbur siin gii sëñ yàllu seen dëkk tey fekkuñu ko fa ñu leen sëñ baabaa nga ngal ma nga ma ñu war fa dem dabi ko fa mu daal takk wutiram ba moom wutir laa man daal di ñu ne ana njaga ki daal ñu ne mi ngi ci néew mu ne ndax jigéen néew jigéen mës ta jaf ndu am na fi loolu ay walaw la bu jëkk maam ñoom bu ñuy am doom dañuy jàpp ci gaye technique bi yuub ñu ne ko am na fi ndax ndéebee démb lañ ko sam mu ne nañ ma fa yóbbul ñu yóbbu ko fa mu génn mbubb muy satarte topp ko tooy xep mu ne nañ ko toggalib laax mam ñu bisee te boo gone la sëñ Babacar Thiel gaa nag ko tere ne ko loolu ëpp na bu ko defete bul dekkale te kenn ku dee sëñ Baba def na ko fii Ahmed Diouf taalib sëñ Baabaan moo ko yaran tàggoo na fii sëñ baaba ne ko damay dem tukki dem mbuur dem ci sëriñ su ñoominke ñu ànd di nappi jën ñu dugg gaal ñaari fan gaal ga toj ba mu yuuxoo sëñ baaba aw fasu mbóngu la gis mu jàpp ci geen ba mu génne ko ci biti ñaari fan la gaal ga daw mu sëgg di faru daalam gisatu dara mu daal takke bagage am ñëw bis bi mu war a agsee ci dëkk bi sëñ baaba woo sëñ siidi ne ko awal nii wuti garage mboso gàttal ma Amet ju sëñ siidi ne ma dem dugg sama néeg toog ne ko boo dewee man dofuma ku tukki ñaari weer ñett tàgguwu la nga naaw gàttal ma ko nee surtout mu ne siidi mu ne ko mbàkke mu ne kaay mu ñu mu ne ko kee di ñuul demal gàttal ma mu dem fekk mu yamit Juuf yu ñu fekk ko fii diim gii fi ginnaaw kër baay bu na boo demee ci kër mbenn diim ñoom fondement ab tabax baa nga fa fa la toog mu ñu mu ne ko mu nuyu ku mu ne ko aman na nga def ak gaal ga mu yuuxu ko ne ko kenn dem ma ti dillu si waatu samay loxo ak koo man doon ak koo man dem suñ baaba def na loolu daam njaay gune yi xam nañ ko ci taalibe si ci mujj gi mooy taalib bi ëppan jëf ci kër sëñ baaba mbootal la dëkk bàyyi la bu ndaw ci maire bii fi ne wala magam Abdourahmane Ndiaye baayam dafa ñëw tàggu sëñ baaba réew mi kenn ñimewut ak génn sab dëkk te tàgguwu sëñ baaba bi mu fii ne kenn mësu koo ñime mu tàgg ko ne ko damay dem Ndakaaru dimanche ca ngoon mu ñaanal ko Abdou Abdourahmane Ndiaye ne ma xëy demuma dimanche demuma ah ah déet demuma altine demuma talaata demuma àllarba ci suba sëñ baaba xëyee fii suba cuuy daal dem kañ yónni woon doomam ngi ma bàyyi ci sama néeg sëriñ a lañ yebal ne ko demal mbootal seetali ma Abdourahmane Ndiaye sëñ muudun yebal ko muy xalifa bi tey mu dem fekk ko muy génn joo jamono yi ab saag yi ñuy yor saagu xottu sàlla daal yor ñaari bant yu ñuy ubbee kàlla fakk ubbi mu tuurlum ndox mu nuyu ko ne ko kaay wu sëñ mu ñëw teg saag bi ci bunt ko jox ko loxo mu ne ko Abdourahmane foo neen mu ne ko lay mu ne ko sonal nga ma roogu fanaan Ndakaaru ci ñetti fan yi fóon naa ko juróom-ñaari yoon gisuma ci sëñ baaba def loolu fii mu daal di taw wàcc fasaag ba dem jëli ab ba daam Ndiaye ne ko kii laa am sama taaw jéenaa tàkk signalé waaye lii laa am jox naa la ko loolu waral daam Ndiaye di taalib sëñ baaba ak yeneen ak yeneen yu bari loolu ci ci ci karaamaam la bokk eh, xaw ma mujj saa lañ wax xaw ma nu ay ay xew ay mbir daal la toog nañ fii di di ruuj man Mamour Gueye Moussa Seck Baba Ndiaye Ibrahima Ndiaye Abdou Karim Gassama doomam a ngi ci biir néeg bi mata nan fukk ak juróom nuy róoj kàddu gu weex guñ fokkar ñu sëñ baaba ñëw di ko defar sa wa lakk ba xoyum loxo yi ba séenatuñ koon daal yooxoon nañ sax ne sëñ bi euh, lakk na mu daal ñu toog ci run sump gim daa jullee yor yor biram njaayam làmbaay ñu nuyu ko lu ne su du ndégg biram di yooxu sëñ baaba ne kaay leen fii ñu daal ñëw mu toog Biram Njaay na ko sëñ baaba waxuma ñun ñi la gëm waxuma say doom waaye réew yi boo leen woon leen toxal suuf si dañuy dee waaye suuf dina tox mu ne ko accam Biram loolu toxu maa wax damaa diggéeg yàlla sama borom bu yow ma xeyaamee safaatul kubra bu tamee ca ramm ma dinañ tudd saa tur ku ko tudd ku dégg saa tur dem ku ma dégg saa tur laa jëna loolu laa sartane saa borom loolu nag dara mënatee ma def ko sëñ baaba wax ma fekke am na seeru suñ Basiru bu ne ci biir néeg bi suñ baaba daa xëy ne bu mel ni mbindam tubaab neeti ci sama kër ci dëkk bi bu suyeer neeti bu fi nataal moo def suyeer boo dañ daa jël ay këyit di ko taf ci per yi mu ne nañ lawi lépp dem fa ginnaaw kër sëriñ Ndiir gi yoonu làmb yoonu tuguj ñu taal fa bu ñu di taal di taal man maa dugg sama néeg bi maa ngi sama dañoo taalan sama yaay mane ne duñ ko taal taalu min sama yooyu yaay dugg lawe perme dugg ca biir génne photo sëñ Basiru mi ngi ci biir néeg bi sëñ baaba tàbb lépp ci sëñ bi baaba Njaay doomu ay laaj cëngu Njaay na ne ne maam góor lakk nga sëñ Basiru sëñ baaba daw dugg ci biir sawara ba kenn tegatu ko bët di di làmbatu loxo yi ba génne taaw ak suyeer bi daal ne yaakaar na sëñ Basiru dina taalu daal di wooyu bukkaan yi ne ko gone yii fekk mbir mi waxu ko mbir mi da ko ne gone ñëpp jaalale ak ñoom yóbbul ma leen làmbaay te dongo yi ne làmbaay ñëw fii te bu ñu gisee bañ dene bay jubal làmbaay ñu teg toog ñu taxaw fa mu dem jëli ñoom ñu génneen ñi aw ci yoon yoon nu ñu toog mu andi ñi ñii ñu jógee làmbaay ñoo xamuñu lu xew ñun ña dem fee gisuñu ko ñu waxtaanal ca laa bokk sëñ baaba ba di ñëw dëj nu diir bu gàtt kenn mës ta xam ne doolu loolu xewal na gone lu lu mu ne lu mu gis nit la gone ñetti yoon mu daal na xalaat sëñ muur nañ naan ci dox moomu nu naan ci dox ma tey laa ko mos a nettali ñu mandul ñëpp fàtte nañ ko lu def fa juróom-ñaari fan mu jëli mu jëli nu dellu si ñu ñee euh, suñ baaba euh, alhamdulilah daal moom waaw ba tey loolu li sëñ Ibrahima may laaj suñ baaba dafa mas a bañ lu xumb suñ muuru Musawa daa ñëw fii ànd ak ku sëñ Tuubaa ci doom ju góor sëñ Iblaata moo ko nettali ak sëñ Abdou Khadre ak sëñ Saliou ku ne yaa wax mu dugg si am nopp damaa dem di suya 84 may suya la ci sëñ Blaat jóge Bakel ànd ak sëñ Sang Gay mbokkam la ji aada nu ñu sëñ Muudu Mbàkke ma fa ne ni mun leen a gis sëriñ bi ma dem bind jëndam leetar ca machine wol ba ab ambalo bind ci leetar ne ko sëñ bu Blaat nunu nu Sang Gay dañ laa soxla doon doon laa bëgg a siyaare di indi daayira tu sëñ Muudu Mbàkke moom a yor leetar bi di war ana sëñ Muudu Mbàkke rek sëñ Sang ñu ne ko noo ngi ne mu ne kaay nu sëñ Ablaat ñu dem ñu mi ngi toog nii ci laalab ndesin lal bu mel nee bunt bi féete nii bunt ni nee ca koñ bee mu daal di toog nu nuyoo ba toog sëñ Sang Gay ne ko kii doomi sëriñ Ibrahima Ndiire ca xombal xam nga nit ñi fii mu ne ñu bari xamante wuñu dañu yaane rek xamu sant gu tur rek jéena sëñ Ibrahima ne ma yóttee ma ne ma loo bokk sëñ baaba Goudiri mu ne mooy sama baay mu ne sang dana gaa amut ab gis waaye bi ngeen duggee malaaka yaa ngi ne ne ma doomi sëñ baabaay dugg daal may téye bu dëgër ne ma mbusu googee ànd na ma ak mu doo ta ak ñun ñëpp kenn desut nu ñu yendu fa fanaan fa yenduwaat fa mosuñu ko def fenn ful tayib te tayib dañ fa yendu fanaan fa xëy dem mbusa dong lan mas a yendu fanaan fa yenduwaat fa ñëw fii ma ñëwee nag ma dugg ci mag ñi nga xam ne ñoo mag sëñ Ibrahima ci sayir gëstoonteeg ñoom bàyyi wéramati ne ma ki la ma fekk sëñ Baaba bu muy ñëw sëñ maam sëñ Mourou bu muy ñëw saxaar lañ dugg wàcc Bambey luyo otoom neex ma tuuma ab camion car oto bañ daa wax tee 45 lañ luye sëñ Mourou Moustapha ne ci coussin bi sëñ Fallou ñoom yéeg ci kaw kees gi ñu ñëw ba tund ngay naar bi ñu ne daa maan ni ñu ne daa reew mu ne oto bi mënta a dem sëñ Baaba daal di yónni ci sëñ Youssoufa Mbaw ak sëñ Ibrahima Tikke Ndiaye ak sëñ Daouda Birame Mbadiane Góora te soo demee leen jigéen ju fi am sel bu laab na ma ko ndil ñetti téeméeri mètre ak ñeenti mètre bi ma ko nattee ñu lal ko ay sel bu ci biir néeg bi sëñ baaba andi fos bu jigéen ab xacc teg tag ko teg ci laaj ci sër ubbi bunt bi sëñ muudoo saa wàcc yor ay daalli bot yu mboq ne du yéeg teg loxoom teg loxob càmmeñam toxob ni jor astaxfirlaa ci kaw teg gi sëñ baaba jiitu yu womat sëñ muudu musaa topp ci sëñ fall topp ci sëñ baara topp ci sëñ basiiru topp ci sëñ abdulaay door ak sëñ abdulaay moom moom dë borom dër bi topp ji sëñ bi laa topp ji noonu la ma ko nettalee ñu ñëw fii yend fi fanaan fi yend waate bu jullee fi tàkkusaan ba jàppe fi wala julli tis tàkkusaan dem jullee fii ci bi jullikaay baa nga ne ci yoon bi fañ jullee nag ndax loolu du neen man ma gëstu ñetti mag ne nañ ma foofu la suñu Aliou Diouf gane làmbaay gane moom làmbaay gane àdduna waaye ñoom xamaguñu ko ñett ma ko te gëm naa ko ndax dem am na daal ndax dem naa fa dem naa fa waxtu wu nit dem fi béréb di seet dem naa fa ba xam ne fii la gane àdduna bu naan moo leen la fii la gane àdduna maa ko gis kon suñ baaba alhamdulilah rabbi danoo bokk ci moom ba am na sañu nu koo wax di di sant nag kuréelu ñaari guddi ndakaaru di leen cant cant gu genn koyewut goo xam ne gii ci suma xol laa ko tibbe ci ndigalal maam Thierno Birahim ndax nii ngeen def ñu ànd ak ñun nu bokk bis bii te dara xamale wu lu Serigne Touba war nañoo santante danoo war a sant yàlla nag alhamdulilah rabbil alamin ngir sëñ Muntaxa wax moomu ko yéen dong yéen ak ñëpp ko bokk te bis boobu bu ko gën a màgg amut ci yoon wi amu ci ñaari guddi yi ndakaaru fukk ñaari guddi yi ndakaaru fukki fan ak juróom-ñett ci safar benn bis gënu leen a màgg. ndax njàqare li am fii bi Serigne Touba dem amaatutoon ci yoon wi mitit waa am ci Serigne Touba ca kaso gu amaatut ci yoon wi kon ñaari bés yooyu benn bés gënu leen a màgg ñaari guddoy Ndakaaru du daayira du fédération du association mooy murit gi sëñ sëñ Muntaxa wax ci yéen ñëpp ngeen fekk mu ne dénk naa leen yoon wi ci lépp lu ko war a defar na ngeen ci ne lu ko yàq na ngeen ko dindi yéen ñii la ko waxal kon am nanu sas réeréer di sant nag waa département Bambey gépp ngir lépp la xew ci ñaari guddi yi jóg nañu ci tedd Sénégal defe naa mat na ñeen fukki département yu tegal kon ni département Bambey def nan sol sunu daal sa su ne dana war a fexe département yëpp def ni ah waaye lii du murit gi du daayira du fédération du association du dara lu mooy murit gi képp ku dib taalibe yaakaar Serigne Touba ak koo man doon noo man sant war nga cee dugal sa loxo ni sëñ mu taxaa dugal loxoom jël doomam booye noog moom kon nu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant nag guney dëkk bi ngir da bi ñu yor euh, maa ko sosoon at mu jëkk ba man dong ak ñetti nit dañuy wax saataatu ñu góob ba noppi nga dugg ci àll bi di saataatu 68 lool loolu lañ def ba am ñeenti téeméer dong la nam bëri ko pepp nu jaay ko mu ñeenti téeméer nu jëndale ko Abdou Si boo keesu suukar juróom-ñeent day dëm lay jar paquet potom Nescafé da jar ñaar fukki dërëm seen leen ko wutal ndékki mburu amutoon biscuit leen jënd 68 ba tey nu di ko yor ba gone yi aw ma ci kon dama leen di sant bu baax a baax a baax di ñaan ci doole sëñ baaba mu yokk seen kàttan ba li ñu ci bis bu man ko yéen ñi jóg ñu loolu du lu may ñaan lu ma leer naññ la dara mëntee yàlla faj seen aajo kenn mënu ko dee soo naa mi mbeng nu ngi lay sant bu baax a baax a baax sa maam bu dekkee woon du la gën doon jàmbaar soo fekkee woon Serigne Touba def lu raloo sa maam defe ndax yaa ngi koy def te muy lu wér bu ibre Binte Gaye dekkiwaatam toog nga jëf mu jëf yaa ko ëpp jëf su la ëpp xam-xam nga ëpp ko jëf kon jàppal ñëpp a ngi dox ginnaaw ko nee ngi dox na te yéen woo ne fi ngeen jëm fi la bu leen kenn mën a gàllankoor te bu leen jombale seen bopp dara lépp lu sëñ Tuubaa séedal di ngeen ci am jërë ngeen jëf ngeen ma baal maa maa ngi sant waa département bépp ñëpp laay sant jërë ngeen jëf euh, Cheikh bu ñu ngi lay sant yaa ngi bàyyi Sall li mu wax dëgg la kii sama doom la kii sama sët la sëtaat sëtaat yaayam maa di maamam muy muy sama doom tey way juróom moo mag ci ku sant kunta ci Afrique yàlla baaxe ko mu dëkk fii ci Mbuso ndax maamam Mbàkke mënatuma laa wuyu maamam Mati Ndiir ak Maxtaar Màggat ñoo bokk ndey ak baay Maxtaar Màggat jur sëñ baaba Mati Ndiir jur am di maami jëmm ji ak Cheikh Bourama Kunta ak Cheikh ak ak ak Cheikh Sidi Kunta tey ahlu Kunta yu gépp ci Sénégal bàyyi ma ciy waaye day doom ndax ma daa wax muudu du ma moom ndànk ma ko tax mu ne maa ngi sëñ du moom Touba waaye ma du ma moom <laughs> te loolu dëgg la ku mag say am na bàyyi yooyu ñoo kiyee maase daanaka kon moom du kon jërë ngeen jëf Cheikh Bounama sant nañ leen rek jërë sant yéen li di liggéey ne la ne leen waa daayira bépp maa ngi seen ginnaaw jërë ngeen jëf